actuellement ñu ngi ñu ñu ñu ngi koy euh, massaw bu baax a baax ñu ngi ginnaaw bu ñu la massaw di la ziar euh, tur bi ak sant bi. waaw man maa ngi tudd Yaya Thiam euh, maa ngi dëkk pharmacie golf unité 1 waaye fii ma nekk si te Thiawane Dieg Saaw mooy suñu kër gu mag sama kër pap bi ma jógee fii nag dama ñëw préfère toog fii parce que mbokk yi jaaxle nañ te mbokk yi ma gën a jege fii lañ nekk. moo tax ma ñëw fii. sëñ Thiam ndax euh, mën nga ñu expliquer tuuti euh, laata accident bi yéen fan ngeen jëlee bus ak euh, melokaan bi ngeen jëlee bus bi pour mën a dem ci seen xam naa Vélingara nga doon dem boo jugee dakaar xëy na dañu naan bus bi jugee dakaar dem côté Vélingara beneen bi ñu ne Tamba la ñëw Ndakaaru yow exactement ci ban bus nga bokk si ñaar yooyu. waaw man si bus bu jógee Tamba di dem Dakar laa bokk. li ma ci mën a wax loo xam ne c'est vraiment frappant mooy euh, dafa am ay événements yu ndaw yu fa am avant bis bi di dem bis bi dañu programme man dama ma dina Gounass ñëw ba foofu ñu ne bis 23h ma xool sama moto ne ah fii di am fi oto yombul xaaral ma toog fii rek ab 23h jot ma dugg ci mais bala ñuy dem apprenti bi di xeex foofu ak benn client pour problème place. fii place apprenti la ñu seq waa ji xaw ko sot doorante wuñ mais xotti nañ yërëm ak yooyu ñun ñëpp ñu intervenir ne ko yow li ngeen def rafetul parce que client yéen a ko war a dalal jël ngeen xaalisam te place yi fi des baaxatul ay place yu amul siège dorsal la amul yi nga ne ko sama yoon nekku ci fii place apprenti la ngeen bëgg ko def ni rafetul car bi départ bon bi ñu demee ba accident bi am pour wax la rek apprenti boobu toujours filmam décret moo doon dawal oto bi heure yooyu bon man kañ la am certitude bi mooy bi ñu tëdd hôpital bi ne booy gaañ boobu doon xuloo kii moo doon dawal oto bi chauffeur bi sax daf ko jox oto bi moo ko doon dawal moo moo kii loolu mooy avant ñuy quitter mais bi ñu demee nag xam nga 23 heures. bu ñu nelawee après du ñu xam ban heure moo jot mais lu ñu yee mooy explosion ñaari explosion yoo xam ne comme bombe man maa ngi toog ci siège u arrière gauche suufu pneu yi foofu la exposé parce que dama gis poussière bi nu mu sàndeeku mais instant bi ñu yeewoo di xool chauffeur bi ñu gis muy def nii boobu tax ay seconde moo des pour mu dal. donc loolu pneu kanam la walla ginnaaw. ginnaaw bi bon. je peux dire man li ma certitude bi ma am mooy fa ma toog toj na mais deuxième explosion dama xamul jumalee la xam nga jumelé bu defee pëf bii ne pëf même place lay nekk mais mënuma la wax nii bii dafa toj bële tegu ci soit ñaar ñooy toj rek wala ñaari toj boole koog bële waaw mais man en tant que technicien je pense que ñaari yi jumelé yi nekk sama ñoo toj. parce que tono euh, waaw dafa enchaînante te tonalité bi sorantewul donc euh, ñaari pneu yu nekk ci ginnaaw laa gën a jàpp ni moo toj sama expertise moo njëkk toj. Euh, période bu mu toj noonu yéen lan moo nekkoon li nga xam ne moom ngeen yéegoon ci biir oto surtout yow place bi nga toogoon. lan moo yéegoon. lan lan ngeen yéegoon. lan lay yëg. Mhm. li ma mën a wax si oto bi xam nga comme fii au Sénégal rek oto bi moom on est habitué da ngay dugg tey si oto bu xaw a confort faa nga dugg si oto boo xam ne bon da gis ni c'est moins confort oto boobu c'est moins confort parce que am na si siège yu amul waaw déjà da ngay tànn place parce que am na yoo xam ne toogkaay baaxul weñ yi donc oto bi daal du oto bu nekk état bu baax lu ma la mën a wax waaw état bu baax. mais lii di accident mooy chauffeur bi maîtriser wul parce que siggi nañu au moins comprendre euh, euh, maîtriser wul oto bi bi mu defee pëf comme nee nañu apprenti ñun on a dit que dafa dafa affolé peut-être bu doon chauffeur vrai bi dina téye oto bi mais moom deful euh, amul technique bu mu daw bu yóbbu oto bi mu fekki kële bi ñuy comprendre tël daf mel nu ñun ci biir bomb lañ nekkoon rek man mënu la wax dañ ma génnee. wala maa génne sam bopp parce que dama perdre connaissance parce que tëdd ci ñax yi naan mais man lu ma dugal si oto bi ma posé wu question bu si yàgg mun ma am solution mu mel ni ku gëzën sam bopp ma ne ah, duggoon naa oto Tamba ma ne mais man Gounass laa nekkoon lu may lan laa ñëwee ba Tamba pour rek sama xel ni lii du gént ma xalaataat ma ne non jëndoon naa banaana si benn set place ah ok après ma tëddaat. mel nu lu normal sax mel nu sama lal laa tëdd mais bi ma bi ma kiiwee mu ne waaye man lu tax mënuma jóg mu ne nii sama benn mbagg bañ man sii man baal sama yoon dafa tas ma ne nii rek ci laa jóg li gën a li ma gën a traumatisant encore ma gis sapeur yi pompier di ma romb di ma fel sax te man maa ngi teñax teñi si kaw tali bi ma ne ñu tax ñuy faale wuñ ma ndeke ñoom xam nañ luy seen urgence ba pare ngi dem jël ñi nekk coincé wu ma dugg foofu di jël samay saak gisuma sama bët dafa lëndam parce que foofu dafa lëndam mais benn gaayen boo xam ne xam nga am na ñoo xam ne mënuñu téye seen làmmiñ lu ñu gis ak wax mais li ma doon dégg musiba la eh kii de tànk yi ñëwul eh kii de moom dee na te eh, teel loxo bi balaa loxo bi di rot yooyu moom. nii laa ko doon déggee muy teglu avant may génn biis bi parce que gis naa sama benn saag bi gis naa sama benn sac bi après ma génn bi ma génnee nag ma gis ñu rang li ñu ci tali bi secouriste yi euh, police ñëw na non gendarmerie ñëw na ak pompier mais c'était pas suffisant léegi nag man ma ne lan laay def ma dem foofu nit ñi fu ñu gën a bare fu am ruq rek ma tëdd seen biir parce que xaw ma lu may def kenn new ma kaay bi kaay waaw ba ma tëdd si ma ne ñii xam naa dañ leen yóbbu xaar ma tëdd fi ndax ñu yóbbu ma teel dégg ku ne ko am euh, xam nga rek ñoom tam jaaxle na ñu ne ku mën a dox jógal nga dugg ci ambulance bi ma jóg ma gis naa ne bu ma jógee di dox gisuma moom aw ma morom kuy dox ça veut dire man ci ay cadavre laa tëddoon ak ñi gaañu ba mënuñu ba ñu nekk dans le coma compris cela ma dugg si oto médecin chef bi médecin chef bi mu gis ko moom it il était vraiment extraordinaire mu ngi dawal xel pour sama tànk parce que man maa ngi tëdd si euh, direction bi euh, kii bi levier vitesse bi mu may fekk rek di woote waale eh yeewal diw woowal diw nee on a plus de cent accidentés ñëw leen yeewal diw vraiment dynamique laata laataa ñuy ñëw euh, moment bi ngeen eggoon opital dañuy ñëwaat tuuti ci ginnaaw euh, moment bu euh, pneu yi éclaté mhm. atmosphère bi nekkoon ci biir bus bi. atmosphère bi ñëpp dañ doon nelaw avant pneu bi éclaté à moins que mu am ñu dund lool mais man personnellement bi pneu bi éclaté man j'ai constaté ñi nekk son avant nu mu tuddati avant pneu eh, ñëpp dañ doon nelaw mhm. léegi nag bu amee ku nelawul peut-être mooy xam ambiance foofu bon s'il y avait quelque chose dama ko yëg parce que man en général damay déglu waaw déglu donc euh, euh, loolu daal laa la mun a wax man bi may yeewu te man oto du may faral di nelaw damay jël sama sonn mais bi ma décidé nelaw nag guddi na ma jël sama téléphone dugal sama poche dara yëngu du fa loolu lépp ne teg. waaw ñenn ñi ñu ngi seen door seen magnétophone eh, seen kii nu seen téléphone di déglu wala mais ñëpp ne teg mais bu ne bëm moom ñëpp a yeew kuy nelaw ak ku nelawul woon waaw. passagers yi commencé wu ñu bouger ci biir oto bi gën a ah, yokk kii gis nga euh, bu ma la ko doon estimer pneu bi toj ñëpp nee nii xam nga chauffeur ngay xool côté mhm. ñu gis oto bi këñëng këñëng explosion oto bi benn la li nga mën a gis rek mooy nee nga nii rek ba sàgg affaire ne paf. benn moment bu gàtt rek ngeen moment bu gàtt yuuxu moom instinct yuuxu dégg naa tuuti yuuxu xam nga am ñoo xam ne gaaw nañ tudd yàlla waaw genre yuuxu yooyu am na fa mais commentaire jotu fa am dafa gaaw. commentaire jot fa am eh teel oto bi wala eh defal nii jotu fa am siggi rek ba ñu naan ni xam nga bu fekkoon euh, distance bu yàggale sax du ñàkk chauffeur bi toog à côté mun na direction bi bu fekkee chauffeur mu ngi woon ci wetam sax du am temps su ma la déggee bu baax yenn euh, seen chauffeur bi moom moo cédé place am ki nga xam ne mooy apprenti bi pour mën a ñëw. waaw loolu xam nga nit da ngay waxal sa digganteeg yàlla man position bi ma nekkoon mun ma xam loolu mais kañ laa am certitude boobu dafa am koo xam ne ñu ñoo bokkoon noonu saal kii si biir hôpital moo ma ne ndekete booy bi mu ne ma booy boobu moom la chauffeur bi jox kii bi booy bi doon xeex foofu wala euh, bi moom moo yoroon après oto bi mu ne ko ah bon mais si mu ne wax moom après finalement moom moo dem yéeg dawal waaw. ñu ñëw ci euh, hôpital bi balaa ngeen di dama la daggoon balaa ngeen di àgg hôpital moment bi nga nekkoon ci biiru euh, li nga xam ne mooy oto médecin bi médecin bu jàmbaare lool comme ni nga ko décrire mu doon euh, def de telle sorte que ñëpp ñu nekk sur place balaa mooy àgg ak maladie. waaw ah, moom mooy li ma la wax rek dama siy revenir moom c'est le médecin chef def naa bi nekk zone boobu waaw bokkul ak médecin yi nekk si district yeeg kii bi hôpital bi bi mu ñëwee gis naa ne autorité la parce que ni mu doon woowee yeneen docteurs yeeg yooyu say ne leen jóg leen un muy joxe ay ordre presque voyage bi yëpp loolu la di joxe ay ordre naan leen dem leen wool gars yi dama wool kee yeeko ko ko mu ñëw mu am ñu muy insister ñu mu gën a soxla am ñoo xam ne jotu leen